bokk na ca sabab ya nag yi tax itam doomu aadama pas-pasam mën naa bañ a wér mooy mu nuur ci soxlawoo adduna ba ab xalam mujj nekk jaamu adduna koo xam ne adduna rek la yittewoo am na jullit ñoo xam ne lii ngeen def bàyyi seen waxtu toog di déglu diine jàpp nañ ne loolu cartement da nga war a dem liggéey da nga war a dem wut xaalis waaye waroo bàyyi sa heure naan da ngay da ngay da ngay dem ca jàkk ji julli wala da ngay dem di toog di déglu koy wax ci diine ñooñu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ñooñu jaamu alal lañu mu ne taxisa abdu dinaari wa abdu dirham ñooñu mu ne toskare na jaamub dinaar jaamub dërëm koo xam ne wuru sa xaalis lay jaamu nee na ñoo ñooy ab sangam mu wax moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne suñ borom dafa wax ne inna anzala inna anzalna al maala li iqaami salaati wa itaai zaka nee na alal dama ko fee wàcce ngir ngeen dimbandikoo ko ngir jaamu ma waaye alal warta dox seen digganteeg jaamu ma mu ne walaw kaana libni aadama waadin la ahaba an yakuna ilayhi saanin walaw kaana lahu waadiyaan la ahaba an yakuna ilayhima saalis wala yamla'u jawfa bni aadam illa turaab summa yatuubu llahu ala man taab awaw mu ne doomu aadama bu amoon xuru wu fees dell ak alal nee na mu ne bu ma amoon weneen xuru ñaareel teg ci nee na bu amoon ñaari xur mu ngay wut xuru ñetteel mu ne biir doomu aadama ak bëggeem nee na suuf dong nga ko fees suuf dong ku ñu suul ci biir suuf moom ba suuf si dugg ci yow nee na mu booba sa biir dana fees waaye ki xet bëggee te doyuloo tut kooku lum mën a am ci alal itam du ko doy bokk na ca soxla woo sa njaboot ba mu ëpp al infiqaal bil maali wa zawja wal awlaad alal ak soxnaa ki doom loolu rek mooy sa yitte loolu dana dox diggante nit ki ak xam lu diineem dana dox nit ki diggante ak ni mu war a jaamoo borom bi tabaraka wa taala rabu rabbi ne waalamu annama amwaalukum wa awlaadukum fitna xam leen ne seen alal ak seeni doom mën naa nekk fitna ci su fekkente ne tegoo ko ci aw yoon njaboot soo ko tegul ci yoon day mujj nekk fitna ci yow moo tax borom bi nag fala tujibka amwaaluhum wala awlaaduhum innama yuridu llahu li yuadibahum biha fi lxayaati dunia am na ñoo xam ne yàlla da leen di fitnaale seenu njaboot bu seenu njaboot màggee rek ñu ne ci coono ndax ñoo ko jàllewul woon fi mu war a jaar xale bi bi mu tolloo ci jàng boo ko xañee yàlla bu tolloo ci man yàlla xañ la ko yooyu tam waaw da nga koy jox yàlla bi mu ci tolloo jiwu la jiwu da nga koy nangoo jox bàq bi soo demee ba muy ñor yàlla delloowaat la ko yàlla moom da koy yokk delloowaat la ko waaw yàlla li nga suul ci bàq bi téyewu ko téyewu ko da koo saxal yokkal la ko masalu latina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanaabil fi kulli zumbulatin mi'atu habba xam nga ji benn pepp rek am ci juróom-ñaari téeméeri pepp yàlla itam boo jëlee sabab jox ko mu jàngi alquran nga xamul naan moom sànq na doomam kooku day bu màggee du tekki jàngiwul tubaab jàngiwul métier nangam nangam jox na ko yàlla suñ ko jàngalee diine ba yar ko ba mu nekk nit ku baax su del si waatee la ñooñee ñu teeloona dugal te fu ñuy wutee àdduna la ñu am dana am lu ko ëpp fuuf ba jëlaat leen ñoom sax di leen jëriñoo loolu te loolu gis nañ ko bu baax a baax a baax gis nañ ne réew mi li ëpp ci li koy doxal ña ko yore ay ñu jaar ci daara lañu ay ñu jaar ci daara lañu ñoo xam ne ba ñu ca tolloo ñu bari dañoo jàppoon ne ñii kat seen avenir bootul lu baax li ma koy faral di misaale ne ñaari dëkk yi nga xam ne kenn ku ne ci nga bëgg a dem kenn ku ne boo amee doom am nga ñaari dëkk yoo xam ne bëgg nga mu dem ci bëgg nga mu texe bu dee xanaa xanaa bëgg nga mu tekki su màggee kon texe ak tekki ñaar yooyu mooy sa projet ci say doom texe ak tekki sama doom ji dama bëgg bu màggee tekki dara sama doom ji dama bëgg bu dee texe waaw léegi kon ñaari dëkk la benn dëkk bu nekk nag am na lu fay yóbboo dëkkub tekki moom ab gaaraasam oto yu baree faral dëkkub tekki ab gaaraasam oto yu bari la am waaye dëkkub texe nag ab gaaraasam benn oto la am bu la rëccee jeex na texe boobu diine rek ku amul diine mënoo texe ku amul diine mënoo texe ak loo mën a am amoo diine doo texe kon nag sa doom buy doog a jóg nga bëgg mu tukki ñaari dëkk yooyu njëkk koo inscrire ci dëkk bi nga xam ne benn oto la dëkk bi nga xam ne benn oto ko ragal inscrire ko fa mu dagg fa bii am fa place ba pare mooy sa doom kon bu tolloo na jàngi diine ba pare su paree nag bu def nag bu tekki bi muy bu adduna bi mu dem ca garage ba oto ba mu fa fekk dana ko yóbbu mën naa fekk première car départ deuxième car mais du ta fekk troisième car yi dana dem waaw mooy métier yi adduna moom métier yi rek métier moo topp boo ko bàyyiwul daka dem waaw adduna moom li ñuy tax a réussir bari na da ngay gis ko bay baaxul mu bàyyi fa mbay ma dem commerce baaxul dem jàngi tailleur dem jàngi menuisier ba ba yàgg benn ubbi ko ci boobaa ko yóbbu waaw boobaa ko yóbbu bokkul ak diine rek moom ngay làmb naan damay bu bu fa jàmbee fii bu doxoon ma làmb fee déet diine amul ñaari làmb moom benn la moom diine rek ngay am boo ko amul doo dem doo tax adduna nag moom métier moo topp réussirul bëndul ci yow nga bàyyi ko fa seeti meneen rek bu yàggee yàlla ubbil la bunt fam soo fii ma nekk bi xam nga xuloo min resmi wa ilayhi nusur kon nag jëkkeel bi nga xam ne tey boo boo gën a garanté ndax doom ji màgg gi moom wóoru la mais dee gi moom wóoru na la boo amee doom rek xam nga ne dana dee moom ndax dana màgg nag moom wóoru la ndax borom bi nee na summa li takunu suyuxan waaye wa minkum man yutawaffa min qablu am na ñuy faatu bala ñoo màgg ñëpp duñ màgg bama wa minkum man yutawaffa min qablu wa li tabluqu ajalan musamman wala allakum taqib kon nag nga yitte woo lijjanti bi la leerul bàyyi fi bi leer maanaam kii nga yitte woo avenir addunaam su màggee laa bëgg a defar te jéem moo defar su dee te leer la na dana dee te wóoru la na dana màgg loolu erreur la ah kon sa doom boo ci amee sas bi nga ciy njëkk a dal mooy dalal sasu su dee nu muy lijjanti ko moo tax borom bi ne la qoo anfusakum wa ahlikum naaran naaran sama doom ji lu may def ba mucc ci safara loolu borom kër bu ne ku am doom ku ne loolu nga war a xante ko waaye lu may def ba mu am place loolu alal kenn mënu koo garanteel kenn boo ko fi bàyyi loon milliards yi te yoroo ko tegoo ko ci aw yoon milliard boobu dana dem ci loxol ña yaru dana ko foyee caaxaane ko ba mu tàbbi ca loxol moom ña ñu yar kon doomu aadama li nga ko mën a dimbalee rek moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne way jur maa naxala waalidun waladan xayrun min adabin xasan nee na way jur defalul doom lu gën yar ko yar bu rafet parce que yar bu rafet bi capital la bu mu àndal boo xam ne fu mu dem fekk ko fa yar bu rafet boo koy dëkk bu mu ne wàcc tey andaalewul dërëm waaye yaru na yar bu rafet balaa am ñetti fan dana fi am baay dana fi am ndey dana fi am mag dana fi am rak lépp dana ko fi lam manqué woon ci dëkk ba mu jógee yépp dana ko fi daal di am ndax nit ñi ku baax rek la ñuy seet même ñu bon ñi ku baax lañ bëgg ndax kooku lay mën a jëriñ ku bon ki bëggul ko bon ne moom ndax xam ne ne daf koy law kon waajal say doom ci yar leen li nga am ci alal lépp nga sonne ko ngir yar say doom ndax kat àdduna li kër kër gi bari bari yi ngay jëndal yépp nag li nga fiy dese soo fi jógee mooy say doom waaw leneen loo fi am ci àdduna boo fi jógee danañ ko askanale keneen sa kër dañ naan këram ba moom même sa soxna sax keneen da koy jël ñu naan kii de soxna si diwa woon waaye sa doom nag moom parce que da ngay dégg ñu naan doom yi diwa woon te sa doom moom boo fi jógee sa doom moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam bi muy lim yiy jëriñ nit ki bu fi jógee mu tudd ca waladun saalih tad'u lahu nga bàyyi fi doom ju baax joo xam ne day wéyal lu baax li nga doon def ba noppi di la ñaanal fu ko nit ñi gisee itam fàttali la fàttali ko la moo garde saw sant waaw sa sant bi mu yoraale nga xam ne sant bi fu ñu ko tudd nit ñi sa xel seen xel dem ci yow moo tax kon li ngay am ci alal sax mooy yëpp sa coono yëpp jar na nga muñ ko bañ a teel a yàkkamti njariñ yi say doom parce que ñoo xam ne bu xale yi ne jógee rek ñu daal nañ dem tool wala nañ dem ci bitig ba nañ dem ci atelier yàkkamti lu ñuy am ci ñoom da nga ko war a muñ mi ngi mel ne na nga muñi jiwu jiwu bi mënoon nga koy saaf di moo gën a gaaw ah ah jiwu bi bu tàkkusaanee rek nga defal sa palaatu gerte waaye dem suuf ko ci àll ba ñëw toog xam nga loolu métti la ba noppi waxuma ca dem toog waaye dama ko ñëw di ñàkk te doo andeegul dara saa booy wàcc tool doo andi dara mooy ki jëli doomam ne dem yóbbu leen ca daara amul ku ko wamatalu fas amul ku ko ñawal ay yére bu fekkee kuy ñaw la lu muy def lu nekk xanaa ñeneen lay doon fay leen wala yooyu waaye amul ku ko defal daa jiit boole ca nag di bay mooy ma ngay dem ca daara ja di toppatoo xale ba di joxe la muy dunde di toppatoo ko koy jàngal day day bay bis bu la muy bay ñoreen xale ba jàng alquran jàng diine ba ñu yar ko kooka bu ñëwee la borom bi nettali la muy wax hatta isa balaka asuddahu wa balaka arbaina sana sa dem jooju bu demee ba am ñeent fukki at nag ndax mu kallaf nag lu muy wax rabbi day tàllal ay loxoom ne rabbi awzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya di gën di gën kooku xam nañ way juróom de yàlla may ma ma sant li nga ma defal waaye may ma ma sant itam samay wayju ndax borom bi moo ne an iskur lii wa li walidayka sant ma sant say wayju waaw wa an a'mala salihan tarda yàlla yal na nga ma may ma mën a jëf lu baax wa aslih lii fi duriyati yàlla yal na nga ma baaxalal sama njaboot inni tubtu ilayka wa inni min al muslimin doom ju baax bi suñu borom nee na loolu lay wax mu ne ulaika alladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayiati fi ashabi aljanna waada sidiqi allati kanu yuadun mu ñëw ca jeneen doom ja nag ne wallati qaala li walidayhi uffin lakuma waaw kenn yarul yarub diine yow ma ca doon sori di ko kab kabal lu ne nga ñàkk ko ci lu ne nga daj ko ci moom su màggee yow lañ di ko wax mbas ma la lu ma dal yaa ma ko yóbbee yaa ma tardeel offil la kuma lekkuma dayam ak bàyyam lay wax offil la kuma mbas ma leen suñ koy waar mu ne ata atata idaa nii atata idaa ni nii an uxraja nee ngeen dekki dafa am ana ñi fi jóge woon kenn dafa dekki wa xadd xalatil xuruunu min qabli ba adduna bi sosoo ba léegi gisagu leen fi kenn ku nekk ku dee jeex na loolu la leen di wax waxuma yi tax yi ah jàngaluñ ko yàlla xamaluñ ko diine adduna rek am lañ lañ ko def in hiya illa xayatuna dunia namuutu wa naxya wa ma yuhlikuna illa dahr adduna rek am benn nga dund wala nga dee jeex na loolu lañ ko jàng nee na waxuma yastaqisaani llah naan ko amin inna wa'da allahi xaq fa yaqulu ma hada illa asatiru al awalin mu leen da ngeen di léeb rek borom bi ne ulaika allatina xaqa alayhim al qawlu fi umamin qad xalat min qablihim min al jinni wal ins innahum kanu xaasirin ñaari résultat yi rek la ñoo am waaw wala si qaala li walidayhi ak ki nga xam ne dinaan rabbi aw si ani an askura ni'mataka allati an'amta alay ñaar yooyu nag boo ci yar sa doom noonu lay ñorle doom ji daal jëmbat la boo jéem suuxat ci diine bu màggee nii lay mel teraanga ju mu am yaa ciy jiitu ci adduna te ci adduna rek laa wax de dana ciy jariñu lu nekk dana ko ruus a am di ko jariñoo di romb way juróom te way juróom amul bu dee ka nga xam ne beneen yar nag lañ ko yor nag même su amee adduna day jàpp ne ay way juróom bokkuñu ci lu mu leen cee jox ab sarax la koy tuddee waaw fa muy dëkk du nagu ñu dëkk fa alors yéen a ngi ciy dégg seen bët yasoo nit seen doom yar leen beneen yar ba war ne am nañ ca teraanga boo ko duggoon ne bu ana sa néeg bàyyi wala ana sa néeg yaay du la ko wan moom waaw du la ko wan man laa war kay néegu xaj ba xëy na bay nga xam ne buntu kër boobu moom man na moom am na am na bu wutul sax moom fay ëpp cër baayam waaw bu duggee ci oto ba moom lay sànni ca gannaaw waaw kooka ah loolu la jiwoon kooka kon nekk ci àdduna bi doo mën a ñàkkee noonu nag bu faatoo nag sax da ngay dégg koo xam ne dañ naan ah kii de yàlla na fekkee njariñi ay doom su fekkee sa njariñi doom li nga daj ci say doom njariñ li mooy li ñu lay defal ci àdduna rek kon li nga ciy jariñu lu bari ndax daanaka say doom fa ñuy mën a dara yow daanaka dafa fekk nga nga xaw a jeexal daanaka bu ñu toogee teew ñam la nga cay lekk yow du mën a bareeti bu ñu yoree oto daanaka doo ca dugg mag nga dima too fenn daanaka bu fekkee ne kon loolu nga doon jëriñu ci ñoom kon daanaka jëriñu woo ci waaye su fekkee yaroon nga leen ci diine nag même boo faatoo ba leen fi ñuy jëf lu baax yàlla diversi ci sa compte waaw ñuy jëf lu baax yàlla diversi ci sa compte ñu lay ñaanal yàlla di la dikkal abadan ngay continuer jëriñu ca doom ña loolooy jëriñu ci doom waaye jëriñ sa doom ji mooy kër ga mu ko tabaxal ak ñam moom ko tibbal ak yooyu rek wala yéene yam ko xottil bu fekkee loolu rek la kon njariñ la soriwul waaw kon nag lay tax nga jëriñu sa njëriñ lu continue nag mooy yar leen yarub diine kon nañ góorgóorlu wat ci njaboot ji bu baax a baax a baax yar leen ci diine yarub diine yi nag dafa am fu muy jaar du lu ñuy tàllale dafa am procédure nu ko yàlla tëralee dafa am nu mu ko tëralee tàmbalee ca way jur yëpp kuy takk soxna bu ci jublu rek bànneex waaye na nga ci jublu koo xam ne da nga ci mën a am doom ju baax waaw jigéen it buy sëy bu mu ci jublu rek fu ma amee jëkkër rek baax na na jublu koo xam ne dina ko mën a dimbali ci mu am doom ju baax moo tax borom bi ne wala tankihu al musrikaati atta yumin na jigéen ju pas pasam baaxul muy bokkaale ak yàlla bu leen ko takk li feeg amul tawxid wala amatun mu'minatun xayrun min musrikatin walaw a'jabat mu ne jigéen ji doonu jaam jaam laa wax de te gëm yàlla nee na moo gën ku bokkaaleeg yàlla ak lu la mën a yéem ci moom judd ba ak ku ko mën a jur ak lu mën a yor ci alal ak lu mën a yor ci teraanga te fas-fas ba baaxul nee na ab jaam ko gën del ci wax ak jigéen ñi ne wala tunkihul musrikiina atta yuminu bu leen may soxna góor guy bokkaale ba ba muy gëm yàlla wala abdun muminun xayrun min musrikin walaw aadama ab jaam nga jaam amul dara xam moom ci boppam sax alal la waaye nee na su gënee yàlla moo gën bokkaalekat bi ak lu la mën a yéem ci moom daraja jaag juddu baag alal jaag lépp waaye amul tawxid jaam baa ko gën ci jeexal bi ne mu wax nag lu tax mu gën ko mu ne ulaika yad'una ila annaar wallahu yad'u ila aljanna nee na jigéen jee pas pasam baaxul soo ko takkee safara la la jëme góor gee pas pasam baaxul yow jigéen ji soo sëyeeg moom safara la la jëme loolu leer kon foofu ngay tàmbale ci pas-pas bu baax su doom ji juddoo nag nga yar ko ci diine nga jàngal ko alquranul karim na alquran jiitu ci moom alquran su xatee jiitu kaaraange la goo xam ne dana aar nit ki ci seytaan wa ida qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna alladina la yu'minuna bil axira xijaaban mastura borom bi nee na foo jànge alquran wàcce naa rido sa digganteeg seytaan yi sa digganteeg ñi gëmul yàlla kon nag ñu xam ne pas-pas du rek lu ñuy woote woo di ko wax ne julit laa rek waaye dafa war a feeñ ci say wax feeñ ci say jëf julit daanaka jërul muy présenté boppam su waxee rek wala mu jëf rek ñu xam ne julit la waaw julit jotaay ba mu toog jërul mu naan man ab julit laa war na su waxee wala mu jëf rek ñu daal di xam ne kii ab julit la comme garab gi ni nga xamante ne su meññee meññeet mi soo ko mosee daal di xam garab gi lu mu doon mango gi lu mu meññ lul mango kooku mosee rek doom bi daal di xam ne kon garab gii mu jóge ak mango la kon pas-pasu jullit ak jikkoom ak comportement noonu la war a ànde muy woote lool nag léegi li ñu gis woote woo ngëm nga nekk nee melokaan yi ak jikko yi nekk nee mel na dañoo bokkut ñu bari daal jàpp ne ngëm gi moom da koy wax rek saw làmmiñ jaamu yàlla gi itam da ngay dem rek sas wuñ la sas da ngay fexe ba teggi ko rek julli daal jot na naa fexe ba sànni rakka yi rek gis nga am na sax ñu ko doon sànni na may ñëw sànni rakka waaw nañ sàkk sànni rakka yi rek ba noppul waaw xam nga ko kooku julliwul julli gi nga xam ne mooy war a defar nit ndax julli gar jaamu yàlla yi ay ordonnance la yu ñu la bindal dafa amee heure boo gisee fi mu ne ñuy respecté heure yi loolu la xam nga docteur bi bu la bindaloon ne la day jël jël benn suba benn ngoon benn bëccëg benn ngoon nga ne damay bàyyi ba timis rek mën naa am ñetti doom ñetti continue yëpp benn yoon waaw xam nga loolu mooy ki nga xam ne julli yëpp da koy boole xamul ne benn bu ne dafa am heure loolu nga xam ne dangaa war a naan comprimé suba bi mu am lu mu def ci yow ba midi midi nga naan beneen comprimé mu am lu mu def ci yow ba ngoon nga naan beneen comprimé fanaan ak moom nga ne damay bàyyi ba ngoon rek ma naan benn comprimé yëpp benn yoon boo tuul nag da ngay doole ko feebar ah moo tax ma ne inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquuta julli xam li ne daa am waxtu waxtu yi daa am lu mu ci joué bul ne rek l'essentiel man julli naa juróomi julli dañoo xam ne loolu la ñuy wax nag man daal l'essentiel daal julli naa juróomi julli kañ laa ko julli nag sama rek néew ci waaw julli naa tisbaar julli naa takkusaan boole naa leen ñoom ñëpp goy en gros laa koy def waaw dañ ko xam ne man du ma détaillé man en gros lay def waaw damay boole lépp rek kooku musiba la da nga koy def ci heure yi ba noppi defee ko ni ñu la ko waxee itam nag parce que benn sëst boo def bu ne dafa am lu muy def ci yow rukkoo beeg sujjóot beeg taxawaay beeg toogaay beeg benn bu nekk am na lu muy suy ci sa roo am na lu mu ciy def yoo xam ne soo ko tuusee dem rek la mu war a def du ko def loolu nag jaamu yàlla yi di ko rafetala noonu loolu mooy tax nit ki ngëm yàlla mën a dëgër ngëm yàlla mën a màgg ba lu ko borom bi digal mu def ko lu mu ko tere mu bàyyi ko kon nañu yittewoo jàng bu baax a baax a baax jullit ñi bokk na ci leen di gën a doyloowaat ci seen diine mooy dañoo jàpp ne njàngum diine daa am fu mu yem di koo xam ne naan man weesu naa jàng ba ma nekkee ca daara ja te jàng kenn du ko wees aw jàngiin mooy wees aw jàngiin waaye jàng ci boppam moom du jeex aw jàngiin nag dana wees takk say bagage moom dem ca daara ja toogi fa moom dana wees moom nit ki dana toll foo xam ne mënatul loolu yor nag njaboot yor nay responsabilité mënatul a takki bagage am naan damay jàngi te daala ja toog déedéet waaye jàng dafa bari façon kon ñii laye ne damaa nekk borom kër wala damaa amul liggéey mënatuma jàng xanaa xamuñu ne l'islam bi muy wàcc ci yonente bi alayhi salaam borom kër la aboubacar borom kër la ousmane borom kër la omar borom kër la aliyu borom kër la te ñooñu booba duñu xale bu ne bu ne dañoo doone xale jàng islam déet ay mu kàllaf lañ ci la ñu jàng diine dund ko ba mu yegsi ci noonu tey kon boo ko dee seen dëgg sax mu kàllaf gën a war a mën a jàng diine kon ñu ngi ñaaxaat ilimaan yi bu baax a baax a baax ilimaan jàkka mooy li mën a continuer njàngum diine njàngum diine ci jàkkale ku ndax jàkka mooy li dëkkal jullit bi mu war di fa ñëw juróomi yoon ci bis bi loolee nag dafa war a am nag nag di jàng diine yonente bi alayhi salatu wasalam jàkka ja dawul jul rek dem dawul jul rek dem da ngay ñëw fekk ko mu toog ñu saaba yi wër ko mu jàng tànn ci ab juddu bu leen ko tànn ci ak mag bu leen ko tànn ci alal bu leen ko tànn ci daraja tànn leen ko ci ki dàq jàng yaummu naasa aqra'uhum li kitaabillah kii jiitu nit ñi mooy ci leen dàq jàng ci leen yàlla donte moo fa gën a leen ak donte doxandeem la fa wala ñu bari dëkk yoo xam ne nanguwuñ ab doxandéem nekk fa ilima waaw mais ba tax ñu nangu ab doxandéem nekk fa nekk buñ leen tabaxaloon ab dispensaire dañ naan docteur bi fokk ci dëkk bi lay dëkk te kenn jàngul la fi ah dañ leen affecté ku jógee ca Tamba lañ leen di affecté mu ñëw fi di lakk sax par bu déggante biir te moo leen di fi kenn du ne doxandéem bi du ma fay waaw soxna ngeen ne doxandéem bi du ma jiitu kii kenn xamu ko bi du ma jiitu ah te pourtant jiite googu ci diine moo gën a garaaw ma ne erreur bi ci ci méttee biy def moo gën a woyof erreur bi ci liite ci diine bi def ndax kii faj erreur am mi ngi yem ci gën gaa garaaw lam la mën a def mooy rey la pikir la nga faatu wala mu jox lay koon bir la nga far faatu foofu la mbir yam am naa kay def erreur ci diine nag moom soo dee nag foofu la erreur am tàmbale moom waaw su la jógloo ci sa diine ba tàmbal la ci loo xam ne du noona ba nga faatu ca loola foofu mucc ba la erreur am foofu la continuer ndax coonab adduna bi ci gën a rëy mooy dee adduna lu métti métti métti métti ci dee la da ngay gis ku lay tëkk sax dana la dóor ba nga dee la yow foofu la mën a yem dee loolu la waay mën a wax moom nga tudd dee moom foofu la affaire yi yem waaw dee mooy li ci gën a métti àllaaxira nag coonaam dee ca gën a sell waaw waa adduna dee la ñuy muslu àllaaxira ña nekk ci coono dee la ñuy ñaan waa safara dee la ñuy ñaan voilà ndax dee gën a sedd ca lañ la ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون ñu ne Malick Malick mooy bëkk réew bu safara mooy recaabi yi ñu ne ko Malick waxal yàlla mu jekkale mu rey na mu ne leen déedéet du leen rey ndax da leen andi loon dëgg la tax gis naa kum bil xaq walakin aksarakum lil xaq karaytu ba ngeen nekkee adduna dañ leen a waxoon dëgg ngeen li ëpp ci yéen bañ dëgg lu bari soo waxee dëgg ñu ne ci daal da ngay dëgg daal soxor mbir yi demewul nii dëgg nag da nga koy xam wala nga gis ko law taalamuuna ilma alyaqin su ngeen ko deful nag summa la tarawunnaha ayna alyaqin ilma alyaqin ba ayna alyaqin rek dañ lay wax ci dëgg nga xam ko topp ko nanguwoo koo topp soo demee yomal xiyam teg sa bët waaw ñaar yooyu rek moom moom te mais dëgg kenn mënu koo umpale dëgg kenn mënta continuer di ko umpale da nga koy xam wala nga gis ko kalla law taalamuuna ilma alyaqin la tarawunna aljahim su amul nag summa la tarawunnaha ayna al yaqin ayna al yaqin kon nag yàlla yàlla wan dëgg defal lu tawfiq ban mën koo topp mu wan lu leen defal lu tawfiq bañ mën koo daw mën koo sori yàlla tënk ñu ci siraatul mustaqim yaral nu sunu njaboot dundal nu ci lislaam ñu dee ci dëkk ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين